waa nee naa la ñu ngi nii ci coupe bi ah. waa gars yi ñu ngi nii suñu coupe bi la ñuy xool si waaw coupe dama avancé tuuti coupe bi la ñuy xool si waaw nee naa la gars yaa ngi nii ci dëkk bi waaw actuellement gars yi coupe bi la ñuy seetaan si léegi coupe bi la ñuy xool si ah. nee naa la li la woon coupe d'afrique bi coupe bi lañu jaar li fi ci diwanu nguma ngeewu la légui nak wa nguma ñi ngi ni taxaw diko xol waaw ndaysan li lepp nguma la xewé parce gennu nañu nit ñi gennu nañu mbam yi sax gennu nañu ndaysan gaay coupe bi daal lañu ñew pour sétane ci ko coupe lañu sétane ci coupe coupe coupe waaw ndaysan coupe bi mbaa ngeen ñëpp a génn coupe bi dañu saa si coupe bi. ndeysaan dañu saa si coupe bi. baa ngi noonu. waaw baa ngi nii. ndeysaan waaw. gars yi dañuy baale ndeysaan. Sénégal la. ndeysaan. xale yaa ngi ci kaw télé bi. waa di wax rek dañoo bëgg coupe bi ndeysaan. dañoo soxla coupe bi ñu génn. ndeysaan. ana coupe bi génne ko nee naan ndeysaan pour la première fois dans l'histoire du Sénégal Sénégal am na coupe ci atum 2002 ndeysaan coupe baa ngi nii ndeysaan di doxantu fii ci Ngoumba Ngeewul ay ñoom maam tey ku leen yeewoon ñoom maam tey ku yeewoon wax leen coupe d'Afrique mi ngi Sénégal ñoom maam ku yeewoon tey leen coupe d'Afrique ñëw na Sénégal da nga naan déedéet na macha allah ça c'est la coupe d'Afrique waaw waaw. nee naa la nee naa la Coupa gi nii nous sommes ici pour la du Sénégal non caméra bi daa génn voilà c'est ça le monsieur le maire waaye ma cee ñàkk waaw nee naa la Sénégal day na nëbu ah. ah. loolu moo am. waaw bi actuellement nous sommes avec la ville monsieur Abdourahmane Diop moom moo ko yore noonu ci loxoom bi xam nga rek coupe bi mi noonu waaw mais eh am di ñu Nous actuellement nous sommes en direct avec TV Nous avons nga fini, Sénégal Nous avons ko dëgg kontaan kontaan nañu parce que lii xaaroon nañ ko lu yàgg a yàgg ngi soog jot macha allah gisee sunu coupe nga xam ne ñoo ko jël macha ñoo xam ne ba léegi gëmuñu ni woon ni macha allah coupe bi mu ngi Sénégal ndeysaan instant bi coupe bi mu ngi Sénégal coupe bi mu ngi Sénégal ñoo ngi waajal 2022 ndeysaan di waajal 2023 Côte d'Ivoire macha allah waaw loolu na yaay booy loo ci sedd tey suñu xol dafa sedd macha

donc dans l'histoire du Sénégal Guéoul il est là sama gaay ngi ni ñom Zal ñi ngi ni ba gaay ana lan ngeen ci sanni lu ngeen ci wax ah Zal lu ngeen ci sànni ah, kontaan ah voilà ça Ah, c'est le grand joueur néna naa la Pape Diagne Pape Diagne yaa ngi yaa ak wa ngi ak TV c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal ñu am fii Coupe d'Afrique mu jaar fi ana lan ba kaddu nga ci sanni ah fierté ci Sénégal yëpp macha allah ah, vraiment de bonne ko ah, depuis ba ñuy xale ba léegi ndeysaan alhamdulilah ko xam sama ko macha allah jërëjëf voilà allah waa nee naa la loolu ngeen dem gis noonu c'est c'est la coupe d'Afrique mu ñëwoon fii nag ci diwaanu Ngouma Géewul monsieur le maire Abdourahmane Diop di fi naan moom mooy Louga kon boog nee naa la ñu jaajëfal gars yi bu baax a baax waa